Euh, di sant yàlla bi ñu may ñu fekke ko di remercier bu baax monsieur le maire sortant Abdoulaye Baldé di nuyu njabootam yëpp jiital ci soxnaam bi nga xam ne Maram Baldé ñëw na fekke si bés bi di wax ni mbir mi def nañ ko ni mu war a demee def nañ ko ci dal ci tey def nañ ko ci ubbeeku ndax passation de service suñ ko suñu toppoon dëgg dëgg dëgg lii yoon mooy ñett lañoo ko war a fekke mooy ki nga xam ne mooy génn ki nga xam ne mooy dugg ak ki nga xam ne moo war a seede mbir mi muy le superviseur bañ ci waxtaanee ak préfet Dakar dafa préfet Ziguinchor dafa wax ni moom gisul benn texte bu ko wax ni moo ko war a superviser loolu mënoon na doon gàllankoor waaye mujj doon te li tax def ne ko ko monsieur le maire Abdoulaye Baldé def na li mu war def def na ko ci transparence xam nga ma ko waxee ci wolof ci euh, def na ko ci ubbeeku mat sëkk euh, li mu waroon def yëpp ci liggéey def na ko li mu waroon bind def na ko ci PV bi bu ñu ñëwee nag tamit li ci manqué woon yëpp dama laaj ko génne na ko collaborateur mi génne nañ ko mu teg ko ci taabul bi li ma ko ci laaj ci ay question aussi yoo xam ne bëggoon leerlu tontu na ci ci anam yoo xam ne amul lu ñuy nëbb wala lu ñuy denc kon dañuy sant yàlla ni bés bi dañ ci bëggoon am nañ ko te ñi ngi ko am grâce à la collaboration de monsieur le maire Abdoulaye Baldé di ko félicité ci li mu def ndax fukki at ak ñaar yor na ko dëkk bi te fukki at ak ñaar yooyu gëm naa ni li mu mënoon def yëpp en tant que nit def na ko pour dëkk bi avancer te kuy wax ngir yàlla am na fum mu fekkoon dëkk bi am na fu mu ko yóbbu kon di ko ci félicité bu baax a baax di ñaan yàlla moo gën a leeral yoonam ci li ci suñu kanam muy ci wàllu politique muy ci wàllu liggéey muy ci wàllu mbiru boppam yàlla na ko yàlla gën a leeral gën a yaatal di wax nag ni liggéey moom àdduna demee noonu su dee ci wàllu génération génération bu ñëw day def li mu war a def dem bu dee ci wàllu administration dañu ne continuité di service public mooy kenn ku ne da ngay def li nga mën waaye boo fi jógee du tax mbir mi taxaw kon ñun ñëwuñu pour ne li fi nekkoon yépp dara baaxu ci dañ koy far def leneen ndax wax na ko léegi bëri na projet yoo xam ne yu ñu mbébétoon la wala yoo xam ne sax door nañ ko mi ngi fii lu ñuy yeggali la dañuy ñëw loolu ñu fekk ko fi mu nekkoon continuer ko waaye andi lañ ci yokk ñun ci suñu cadre programme yemul rek ci gis-gisu commune waaye dañ ci yokk lu gën a yaatu loo xam ne lu ñu bëgg a jëflante la ak population yi soo demoon xool acte trois sax doo ko fa fekk peut-être du compétence commune waaye di ko fekk ci yeneen document yu bokkul ak acte trois ñu jàpp ni loolu mooy lu ñu bëgg a àndi lu ñu bëgg yokk ci mbir bi te pour mu nekk il faut que Ziguinchor ak Ziguinchora yëpp jël dugub bi def ko lay avancer société du mbir moo xam ne dañ naan rek am nañu président de la république moo war a régler yëpp wala am nañu ministre moo war a régler wala am nañu maire moo war a régler yëpp waaye dafa di loo xam ne kenn ku nekk en tant que citoyen moo tax. l'implication citoyenne dafa di benn chapitre bu mat sëkk ci suñu programme citoyen bu nekk dafa war ak jàpp ni Ousmane Sonko waruma ëppale ci mbir mi parce que su baaxee ñun ñëpp la baaxal donc gestion collégiale boobu inclusive boobu moom la ñu bëgg andi pour mu am nag ñun ñoo war a njëkk dem vers les ba ñoom ñu xam lan mooy suñu mbébét ndax nit bu xamul foo jëm mënu laa gunge kon loolu daf ci am solo ñuy woo Ziguinchor waay Ziguinchor waay yëpp ñu ñoo jàpp jiital ci nag monsieur le maire sortant Abdoulaye Baldé ndax am na li ñuy wax expérience am na ci xam-xam am na ci xarañte bi te doomu Ziguinchor la nekk maire ak ñàkk nekk maire doomu Ziguinchor la kon li ma ko wax léegi ne ko bàyyeeguñu la te saa su ma jàppee ni war naa la consulter wala war naa la boole tànk bi ñuy génn maa koy ne ko dañoo defal contrat spécial nga ñëw jàpp ci liggéey bi kon ñu ngi woo waa Ziguinchor yëpp waa Casamance yëpp pour volet territorial bi parce que li ñu mën a def fii gëm naa ni mënuñu koo def feneen ci Sénégal ñu gëmee suñu bokk jublu ci liggéey bi d'ici quelques mois quelques années dinañu gis changement yoo xam ne euh, ñun sax dañ naan fan ñu nekkoon boobu ba léegi di daaneel nag ci wax ni dañoo ñëw pour liggéey ñëwuñu pour euh, di cibler ay nit wala ne dañoo ñëw pour xeex ma sàmb wala ma dem ba dañoo ñëw pour liggéey teewul nag rigueur bi nga xam ne moom la liggéey bi laaj danañ ko ci def ndax ñaari extrême yi benn baaxu ci toog li fi xewoon démb barki démb cible nit ñi créer dossier ku nekk nga song ko loolu du avancé loolu day tàbbeel waaye it laisser aller bu ëpp mooy lu waay neex def baaxul day tàbbeel donc digg gi foo nekk ci li tubaab bi juste milieu mooy digg doomu ñu dalal xelu ñëpp ni loolu taxuñoo jóg donte dañu def rigueur ci liggéey bi waaye ñëwuñu pour def la chaque pour kon loolu daal mooy kàddu yi gàtt ñu ci bëggoon a di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu jàppale ñu ñëpp.